mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak Rewmi FM dal leen jàmm ci seen émission ànd ar aaru ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi euh, tey nag euh, ni ngeen ko déggee dañu dellu siwaat ci kilifa diine yi ndax ñoom itam ñu am solo lañu ci mbir mi tey nag ñu am mbégte ànd ak Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane di kilifa diine boo xam ne kenn dootu ko présenté macha allah Serigne bi ñu ngi lay nuyu di am mbégte lool dalal la ci émission ànd aar aaru bi nga xam ni Plan Sénégal loo ak EMAD di ko jagleel euh, sénégalais yi ci jamonoy mbas mi ñu nekk. waaw asalaamaaleykum waa réew mi FM ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontante ak mbégte ci jataay bii nga xamante ne bii am ngeen ko lëkkaloo ko ak waa Plan ak waa EMAD am pas-pasu yee nit ñi yedd leen tegaat leen ci aw yoon ba nga xamante ne bii lii nga xam ne moo fi ñëw ñu di ko wax mbas ñu mën a xam naka la ni jànkonte ak moom ba mën a tàqalikoo ak ñoom kon loolu moom ñu ngi ci wax ci kàddoog waa réew mépp ak mboolem kilifa diine yi nekk ci réew mi yëpp jërëjëf soxna si. jërëjëf euh, sëriñ Moustapha Ndiaye euh, Thiargane dinañu dellusiwaat ci yow euh, ci kanam ñu daal di jox kàddu gi sëriñ Abdou Karim Fall moom nekk ci EMAD di chargé de projet abdu Karim ñu ngi lay nuyu am mbégte ànd ak yow tey ci waxtaan bi. maa ngi lay fay soxna si di nuyu ñi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy déglu di nuyu auditeurs mi FM ñëpp di nuyu. ñi nga xam ne mooy volontaires yi leader communautaire yi nekk ci 60 quartiers yi nga xam ne yëpp ñu ngi fay yëngatu ci biir Dakar di xeex mbas mi di leen encore jaajëfal di leen ñaaxaat encore une fois ñu amaat taxawaay kenn ku nekk ci sa gox ak sa gox-goxaan ndax mbir mi jeexul tey la gën a tar te tey lañ war a gën a am encore taxawaay bon nag ñu ngi demander kenn ku nekk rek mu dal di amaat taxawaay bu ëpp bi mu amoon ngir ñu aar tey suñuy mag aar suñuy yaay aar suñuy papa aar suñuy maam mais aar suñu bopp waaw. macha allah am na solo masque bi itam rafet na lool alors ñu ñëw ci euh, soxna Daba Ndiaye moom euh, point focal la euh, comité penc bu cëddeem soxna Daba ñu ngi lay nuyu di am mbégte yow itam ànd ak yow ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum ma sœur maa ngi lay delloo nuyoo bi di leen gërëm di leen sant aussi di gërëm plan international di gërëm waa EMAD. parce que ak relais yeeg point focaux yeeg ñoom ñëpp vraiment liggéey bi rafet na te jàpp nañ ci comme ni ñu ko waxee rek tout début est difficile lii nag mosuñu ko xam ak mesure d'hygiène yi am léegi te feebar bi mu ngi gën a persister aussi ñuy waaj a dem ci événement religieux yu bari ñuy ñaan rek population bi mag ak ndaw góor ak jigéen ñu gën a redoubler d'efforts parce que feebar baa ngi fi pandémie bi dafay gën a yokk donc fi mu nekk nii la balle et dans notre camp ñun population bi ñu ànd aar aaru la waaw. am na solo daba dinañu dellusiwaat ci yow ci kanam tuuti ak taxawaay bi nga am surtout euh, jigéen ñi ndax euh, ni ma koy waxee ñoo nekk ci ndoxteel gi waaye tam ñoo nekk ci euh, njeextal gi ci début bi ak ci fin bi taxawaay bu am solo lañ ci war a am dinañ dikkaat ci yow. alors sëriñ Moustapha Ndiaye ni ñu ko baaxoo nag xam naa damay bàyyi Abdou Karim Fall. Euh, mu dikk ak njaw ci projet bi wax la taxawaay EMAD ak plan wax la itam li ñuy xaar ci yow surtout en tant que kilifa diine ndax soxna Daba junju na ko ñu ngi jëm ci événement religieux yu mag mais même bu weesoo événement yooyu ay nit ñu ngeen soxla lañu lool ci xeex bi ndax dañ leen di déglu kon Abdou Karim euh, damay ñëw ci yow nga daal di présenter gan gi tey projet bi dikk ak moom aussi ci euh, li ngeen jot a def ak lan ngeen di xaar ci ñoom ndax euh, bu ngeen tànnee kilifa diine yi ñëw ci ñoom li ma ko waxee léegi du hasard am na lu bari loo xam ne xëy na mun nañu ko indi ci xeex bi nga xam ne euh, ñu ngi koy xeex euh, Covid 19. merci soxna si loo nag boo ko déggee yaakaar naa moom sax leeral na boppam mais li ko indi mooy mbas mi mooy coronavirus bi mu jógee dugg si sunum réew kenn ku si nekk dafa war a jóg am si taxawaay. taxawaay boobu nag moo tax plan international. ñëpp xam nañ ne day yëngatu si lépp lu jëm si wér-gi-yaram lépp luy aar nit ki lépp luy aar xale yi ànd ak partenaire am muy ONG mat ñu dal di taxawal programme boobu depuis presque le mois de mai ñu nekk si si 60 quartiers yoo xam ne ñu ngi nekk si Dakar mais si 60 quartiers yooyu ñu dal di dugg si gox-goxaan yi nekk si penc yi nga xam ne ñoo nekk si biir Ndakaaru les villages traditionnels mais aussi yenn quartiers yi nga xam ne ay quartiers yoo xam ne la Euh, dañu séntu ne mbooloo mi dafa bëri takku fa te xëj na na waroon demee demeewul noonu de ce fait si lañ commencé ne ah pour que sensibilisation bi gën a nekk sensibilisation de proximité nañu fexe ba kenn ku nekk nga sensibiliser ñi nga dëkkal nga waxtaan ak ñi nga dëkkal si la ñu demee si chef de quartier yi si la ñu demee si maire yi si la demee si association yi si lañ demee si leader communautaire yi si lañ demee aussi si relais yi nga xam ne ñoo yëngatu si gox-goxaat yi tànn fu si nekk fukk nit mais si fukk yooyu juróomi dañ ne nañ ko jagleel ndaw ñi li si des ñu jagleel ko jigéen ñi jagleel ko chef de quartier yi jagleel ko yeneen leader communautaire yi nekk si biir quartier bi tàggat leen si maanaam pandémie bi wax leen fan la ñu war a teg seen tànk boole si aussi tamit ñu ne nañ leen tàggat si li nga xam ne nii mooy aar xale yi aar xale yi nag boo ko déggee sauvegarde ak protection de l'enfance et des jeunes daa am lu mu àndal parce que dañoo gis ne euh, chaque fois bu amee dara muy guerre wala muy ay feebar yu ñëw maanaam loo xam ne vraiment kemtaan la day day day indi ay prox ndoll yoo xam ne ñaaw katu ñaaw te fii dañ siy jaar loolu moo tax ñu ne nañ si boole loolu parce que xale yi ah suba lii xew tey ah xale yi ñoo ko mun a nettali suba te pour ñu nettali ko foog ñu nekk témoin de leur temps comme ni ko gars yi di waxee nekk ku nekk dafa war a nekk mais xale bi war na mun a nekk témoin de son temps pour que demee mu mun ko toog di ko waxaat yeneen xale ne leen jamono mbas bi bi mu fi amee de nii la woon nii la woon nii la woon nii la woon nii lañ defee woon loolu moo tax xale yi am si baat mais ñu ne bu ñu yem foofu ku nekk nag xeex bi daf si am baat ñu ne nañ fexe ba nga xam ñun Sénégal dañu am suñu ay tradition tey jii nii wax dëgg yàlla Sénégal bu ko waxee dañu tudd suñu ay kilifa diina tudd suñu ay kilifa aada loolu moo tax ñu ne nañu def la parole aux religieux parce que kenn ku nekk dal di joxe ay indication dal di waxtaan ak nit ñi parce que nit diine boo gis rek am na loo xam ne moom la wax si lu demee nii lislaam yaakaar naa ne set lislaam a ko njëkk a wax di raxas say loxo di jàpp di def luy set l'islam a ko njëkk a wax christianisme aussi boo fa demee da nga fay gis ñu siy wax ak yeneen ak yeneen loolu moo tax tey ñu ne nañ jël parole bi jox ko les religieux ñoom ñu waxtaan ak nit ñi parce que mun naa am ne man Karim xëj na bu may waxtaan ak nit ñi ah nit ñi dañ ma déggoo wala ñu ma déglu benn nopp mais suñ demee tey jox famille Layeen jox famille Suyeen jox ku mel ni sëñ Moustapha Ndiaye nga xam ne am na baat am na ñu koy déglu ah ñooñu bu ñu waxee ak nit ñi nit ñi dinañ leen gën a déglu foofu la ñuy waxee te comme ni ko soxna Dabay waxee sànq ñu ngi jëm ñun Sénégal dëkk boo xam ne lañ euh, dañu am euh, suñu aada ak suñu cosaan yoo xam ne dafa am si religion mu nekk ay ay gàmmu mu nekk ay màggal ak yeneen ak yeneen et je crois que ñun ñëpp si war a apporter suñu contribution loolu moo tax tey ñuy xaar si sëñ Moustapha mu gën a ñaax nit ñi gën leen waxtaan ak ñoom si li nga xam ne diine moom la wax fu si nekk kenn ku nekk xam fu ngay teg sa tànk parce que yaakaar naa comme ni ko sëñ sëñ Mountakha waxee keroog kenn ku nekk su nekkee ki nga xam ne mooy jëf li nga xam ne moom la gouvernement du Sénégal wax ah yaakaar nañ ne feebar bii dina mën a jóge Sénégal te loolu mu ngi war a jóge si ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy wan yoon wi te tey ñu Sénégal suñu guide religieux yi ñoo ñuy wan yoon bi en dehors de l' bi nga xam état bi nga xam ne moom si boppam moo ñu fi nekkal taxawuñu te suñu ministre Abdoulaye Diouf Sarr bi si def taxawaay bu rafet si liggéey bi ànd si ak leader communautaire yi ànd seeg plan ànd seeg ñeneen ñëpp emaat ñuy xeex voilà jërëjëf euh, Abdou Karim Fall leer na am na solo macha allah euh, muy euh, chargé projet bu EMAD doon présenté nag programme bi nga xam ni EMAD moom la taxawal ak plan international jëm ci xeex mbas mi. Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane programme bi yow bi nga ko déggee ban gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci amee mooy bépp ndaje boo xamante ne bii. dañ koy daj ca kilifa diine yi daan ko jiite. premièrement li ma ci jëkk a gis mooy que ne nangu gi ñu nangu ne am na lu xew loo xamante ne bii mën naa tax ñu dakkal xew-xew yooyu. ñoom itam ñu gaaw nu mu gën a gaawee ci képp koo xam ne da ngaa jiite daayira wala da ngaa nekk ci fédération wala danga nekk ci benn mbooloo boo xam ne day soxla woo dajale ay nit gis ngeen ne ñooñu kilifa diine yi rapidement ñoo wax ak ñoom ñu arrêté. seen ndaje yooyu li ñuy fonk fonk julli ak li ñuy fonk fonk jumaaya gis ngeen ne jumaa yu baree bari sax dañ koo tëj ngir fexe nu ñuy xeexe ak jàngoro ji bam bañ a tas ci biir réew mi mu mel ni bitim réew la jóge waaye comme bitim réew ak senegal daanaka lu fa xew ci bu dut virus sax wala biñ xamagul lan mooy virus gis nañ ne lu xew siin balaa mat ñaari waxtu ñu gis ko Sénégal wala ñu koy seetaan directement kon nag loolu tax na nit yi jàppat nañ ne tawat si diir bu gàtt war naa mën a wër àdduna si waaye ñi nga xamante ne bii ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci fànn googu dañoo daal di jël ay matuwaay ci nu mu gën a gaawee jàngal nit ñi lan mooy virus ak nan lay dunde ak nan lay tuxoo ak nan lay jure ba pare wax nit ñi tamit ne leen virus kat nii lañ koy moytandikoo bi ñu leen ko waxee nag réew mi ñàkk gu ñu ñàkk a lu mel ni wala li ëpp ci réew mi mosuñoo fekkee pandémie mosuñoo dégg Covid 19 yëf yi xamuñu naka la demee. yenn yooyu nga xamante ne bii moom moo ci dugg nag nga xam ne léeg-léeg ñu wax dara nit ñëw daal di koy weddi nga toog ba ay fan yu néew nga gis ne la ñu weddi woon mujj na nekk nga gis ne nag loolu nag tax na yëf yi dox ba agsi fii waaye suñ déglu woon. ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy experts yi nga xamante ne bii ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci fànn googu ndax man de nañ ko waxee woon ca njàlbeen ga noonu laa déggee woon xam ne lii kat du lu ñuy gis du lu ñuy karkaral ci ay loxo waaye du lu ñuy karkaral tam ci ay lenn waaye niñ koy karkarale mooy dañuy raxas bépp barab boo xam ne mën na fa dund wala mën na faa tag ñu jàngal nit ñi loolu fii ci EMAD ak ci yeneen barab boo seetaanee télévision yi da ngay gis ne dañuy wane virus bi gis ni nga xamante ne bii ni lay euh, doxe ñu ne ah, nun day kon dañoo yor ay atelier liggéeyukaay walla ay pàkk di ca yëngutu wala nekk ci biir marché bi ca marché boobu daa wulbatikuwaat bootuwaat ci péncu suñu mbokki lébu yi nga xamante ne bii ñun ak ñoom ñoo bokk réew mi ñu ne kat nun kat war na noo taxaw xeex jàngoro ji xeexle suñu réew waaye tam ñu dem ci ñi nga xamante ne bii ci ñoom la ñu bootu bokk ak ñoom dëkk bi di bokk ñoom jataay di bokk ñoom di dégg tawat si ngir ñu mën koo jàllale ci suñu ñooñ ngir xamal leen ne leen li ngeen bari bari activités yi liggéey na ngeen xam ne tawat si mi ngi fi ci nii la fi nekkee nii la fi ñëwee waaye nii lañ ko mën a jokkalantee yooyu nag ñu xewaloon fi joxe ay saabu di takk ay maska wàññi jaxasoo bi wàññi làngandoo bi xew-xew yépp ñu annulé ko dindi jàkka yi wàññi jumaa yi nit yi diir bu gàtt nag mu mel ni xeetu naagu walla lu mel ni communication bu xaw a yolom daf cee dugg ndax loolu sax dinaa ci yedd ñenn ñi ndax dëkk sàngam am na kaa am na kaa même bu amatul kaa kenn warut xëy rek na dëkk sàngam kaa zéro loolu tamit dafa bokkoon ci yi nga xamante ne bii dana indi ak bayliku ci nit ci ndax dafa doon loo xam ne ni nit ñi miinuñu ko bu ñu nee cas rek kon barrières yi nekkoon foofu yëpp duutuñu jàpp ne euh, tawat soosu mën na faa delsi ñu daal di bàyyiliku nag bàyyiliku googu ñu bàyyiliku nag mën naa xëyaat duggaat ci dëkk boobu dem ci beneen dëkk jox ko fa lu ëpp 10 personnes mu tasaaroo ci réew mi ba nga xamante ne bii day nekk lu kenn xamul ñi ci des itam duggal ci yëf yi politique laa ko mën a tuddee. ndax bu fekkente ne bii sa ab ngoo dafa def dara ci tawat si baa mu def ci ak njàmbaar gu rëy ñeneen tam daal di defaat yeneen audio wala yeneen waxtaan yoo xam ne dafay dàq lii wala yoo xamante ne bii ci beneen dëkk lañ ko waxee woon ca bañ koy wax nit ñoo ñee ko doon wax maîtriser wuñu woon tawar si nga fab loole nag daal di koy yakkaat ci presse Sénégal bu ma waxee presse mooy réseaux sociaux yi mm. ñu tasaarewaat ci loolu nga xam ne day niru luy weddi ba tax nag nit yi dem na ba confinement bi ñu defoon vingt ñu dem ba naagu ci ne dañ koy bàyyi bàyyi googu ñu ko bàyyi nag yóbbuwaat ko ci weneen waxtu marché bi delluwaat ca na mu melowoon ca fekk tawat si jeexagu fi bu fi wàññikoo bu ñu defee loolu day wonewaat ne tawat si dina delsiwaat ci dëkk bi comme que nag kilifa diine yi nga xamante ne bii yàlla moo leen gënal sax seen bakkan wala yàlla lañ gën a ragal nit ki tawat euh, ña ngay def ay maska di raxas seeni kër bay raxas seeni miir di takk ay masque ba kenn mënu leen a xàmme kon kay yaaxay si nun ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci seen ginnaaw war na noo fexe ba bu amee ak bu amut wala dana màtt ak du màtt nan fexe ba bu ñu ko jox suñu baaram leen war a jël mooy danoo war a jël suñuy matuwaay yee ndaw ñi surtout ñi nga xamante ne bii ñoo nekk ci marché yi surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci barabu liggéeyukaay yi ñu fexe nag ba maanaam sensibiliser leen teg leen ci yoon woo xam ne ni day dëppoo ak diine ji ñoom ñëpp nag ñu mën a moytu mbas mi ndax lislaam dafa bëgg bakkanub doomu aadama lislaam dafa bëgg ab jullit dund lislaam dafa bëgg ab jullit produire ba nga xamante ne bii suñ noon tawat si dafee na mais weer wu jot fukki nit la fiy dal Sénégal gépp war nañoo mobiliser teg ay barrage yoo xamante ne bi dañuy jàpp ne tawat si ni ñuy koy waajale bu fekkee daa war a dal junni nit ci réew mi ak niñ koy waajale bu waree dal benn nit ci réew mi moo war a yem képp waruñu cee yolomal dara waruñu cee yokkat côté bu nekk ak fànn gu nekk dañ caa war a jël ay matuwaay ba mu mat sëkk magasin yi boo ci duggee léegi euh, gel yi ñu doon def wala po ak siwo yi ñu doon def ak pompe yi di raxasu yépp da ngay gis ne wàññi nañ ko ca ñoom dégguñu fenn ñu ne tawat si jeex na fi confinement moo fi nekkan ñu sensé ko sensé gi nag wootewul ne tawat si dafee deñ wala dafee jeex nit yi nag façon yooyu nag des ci ñoom ak dégg des ci ñoom itam ak doxalin ñu bëgg tënk lépp nag ci économie dëkk bi économiste bi su ñëwee day wax ne tawat si amatu fii ni ngeen di defee nii nangam nangam kii doon ab commerçant di wax ci intérêt boppam ne tawat si nangam nangam fii la xari jaar génn fii su ko defee ñi nga xamante ne bii nag ñoo jiite nag di gën di yee nit ñi ci jataay yu demee nii nga xamante ne bii xalifa sénéro boo gis fii ci réew mi ak jéego yu muy dox lu mu gàtt gàtt ci biir këram soo demee da nga koy fekk mu takk maskaam entourage am bi mu àndal takk seen maska ca ci oto la ñuy ne ca bariwuñu lu ñuy jànkoonte ak i nit wala lu ñuy jaxasoo ki nit wala lu ñuy dem ci ay barab loolu nag fi la ñëpp waroon a xool lislaam de santaane woon na bu ñuy julli ñu sësalante ay mbagg mu nekk sunna ñu fonk ko bi demee ba tawat am ca tawat soosu am mën naa juddoo ci jaxasoo ak langue li muy doon doon ab ponk ci lislaam mboolem chef religieux yi dañoo d'accord ne nit ku nekk ak moroomam na fa dara dox loo xamante ne bi day mat genn wàllu meetar bu teg dara ba loolu yaatu na ci réew mi ba nga xam ni bu bu fi tawat si jógewun sax am na ci barab yoo xam ni yaakaar naa ne noonu ñu ko wëyal ba tampaloo bu ëpp boobu nga xam ne sunna la woon mel na ni danañu fi dana dana dana fi jóge su ko defee loolu dafa bokk ci matuwaay yi nga xam ne waris na koo jël ngir xeex tawat si bam jóg ci réew mi ba jeex fi takk ca loolu tamit nun noo ko mën a xeexal suñu bopp ñun ñoo ko mën ñoo ko fi mën a jëleel suñ bopp euh, palan ay kuréel yu néew la nit yu néew ñoo ca nekk xañ na bëgg réew mi ak bëgg doxal seen liggéey moo tax ñu ñëw lëkkaloo ak emaan bëgg a won nit ñi ne leen kat tawat su nekkee ci ab dëkk nii lañ koy invité bam bañ fee tawat soosu nii la tudd waaye tamit nii ci lay doxe du dem ci ak weñ di ci dox ci bakkanab doomu aadama moom la soxla animaux yi li ñuy bari bari soxlawu leen nit la soxla nit kooku mu soxla tamit mën na koo am laata mu koy yëg ne am na ko mu mën koo jox ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ndax defe naa camp communauté la ñu wax. kan communautaire la ñu wax ak camp contact. loolu tamit ñu gën a yaatal leeral gi xam le ne nit ñi kat ci ni ñuy dajee ak ni ñuy làngandoo. loolu li ci ëpp ci yi nga xam ne ni moom lañ wax ci rajo bi ci loolu lay jóge kon nii loolu daf ñuy dugal baal ma ci dog bi. Mhm. parc Lambaye bi nga xam ne moo nekk ci centre ville te nga nekk fa. Mhm. Euh, foofu est-ce que yéen ñi ngi bàyyi xel bu baax a baax. Mhm. Euh, contact bi ak communautaire ndax communautaire bi mooy. mën ngaa dajeeg nit ngeen waxante nii dem. daje keneen donc yow dootoo xamante finalement fan nga ko jëlee ci ci sew yooyu prox ndool yooyu fa lay jaar ndax fii yéen ak ñi bàyyi xel bu baax ci loolu ñu koy bàyyi xel ndax ndaje bi ma jëkk a ñëw fii ñu àndoon ko ak soxna defe naa Ngóone soxna Ndóoy soxna Xari Ndóoy bi ñëwee fii dañoo seet lenn ci kilifa yi nga xamante ne bii ñoom ñoo fa nekk ñu woo leen kët ne leen vidéo bi ci sama téléphone na ngeen ko jël tasaare ko ci ñeenti groupe yi fi nekk vidéo booba jàngale na lu bari ci wàllu virus jàngale na tamit booba lim bi fi nekkoon matagul sax booba fukki nit ak juróom ci Sénégal euh, ca booba yóbboogul benn bakkan ca booba itam ñi mu dal ñépp mataguñu cent personnes ñu def ci lu mel noonu ñu ne nag kon dinañ leen xool ndax comme barabu mbooloo la ca samedi ak dimaas ak bis yëpp dañ koy liggéey ñu xool ay fan yu tuuti rek lañ ci teg ñu daldi di ubbiwaat dëkk bi man nag seet naa ndax dégg ngeen fi ku fi am kaa dégg ngeen ku fi jële kaa ñu ne fii nit yi bokkatuñu jullikaay nit yi bàyyi nañ joxante loxo nit yi bàyyi nañu xat-xatloo ci jàkka ji ñeentey julli génn ñeneen ñëw wala sax am ci ñoo xam ni duutuñu dem ci jàkka ji dañu ber seen jullikaayu bokku lal ko ci seen place di julli parce que gis nañ ne jullikaay bi dafa am euh, benn place boo xamante ne bi ni ñu jàngalee virus bi ñetti nit bu ñu tegee seen kanam fenn bu ko ci kenn amee kooko mën na ko fa jox keneen mu génn même bu kooku julliwut ci jullikaay bi mën na génn làngandoo ak keneen jox ko ko mu jox ko keneen jox ko keneen jox ko keneen ba loolu dañ cee dal di tàmbali tasaare woon ci waxtaan ak ci ak ñoom xamal leen na leen jàngoro ji nii la demee Ah, yàlla itam mu ngi ñu ci musal boobu ba léegi te itam fii itam buñ fi jógee itam luñ fi jële ci xam-xam boo xam ne day niru lu lu mën a fekk eh, dañuy dem tamit eh, jox leen ko xamal leen ne leen lii kat ñoo ngi ko jële ci xalaatkat yu mag yi nga xam ne eh, dañuy xalaat ci lu jëm ci wàllu virus ndax waxoon nañ leen virus bi nan la bindoo ak nan lay toxoo ak nan lay dugge ci doomu aadama ba mën koo loolu Abdou Karim bi dafa mel ni ku ñu war a jox information yépp la bu fekkee amagu ko ndax euh, dafay euh, porter parole. Mm. te mi ngi ko jëmee ci ay nit ndax fii mu daanelee am na solo. xëy na du ñëppay jote ci information bi ni mu ko waxee ci ndorteel ga xëy na tasaare woon nañu ay vidéo ci ay groupe whatsapp mais xam nga virus bi euh, saay-saay na saay-saay boo xam ne waneegul facetam yépp ndax chaque jour ñu gis ci moom lu bees te li leer mooy am na yeneen yu mu nëbb te woneegu ko donc euh, si noonu sëriñ bi bu fekkente ni am na xëy na loo xam ne yaa ngi koy dégg ci coronavirus te maîtriser woo ko wala muy ay écho yoo xam ne yaa ngi koy am te leeru la boo amee laaj euh, jibal ka Euh, euh, Abdou Karim bu fekkee mën na ci indi ay tontu. lu ko mooy itam ñëw xool feneen foo xam ne nañu fa wuti leeral. ndax loola da nga koy yóbbuwaat ca ca mbooloo ma nga xam ne ñoo lay déglu yow. donc day am solo lool nga di leen jox information yi à temps kon yaakaar naa ne su ma doon laajte damay laajte ndax benn façon coronavirus moo am walla déet wala coronavirus ki mu dal nan lay feeñe ci yaramam ndax dafay miir wala dafay jaare wala dafay fatt wala dafay soj wala dafay def nii wala dafay def naa loolu tamit mënees na ko gën a gaaw a xam ndax nit mën na dem fee rek yëkkati benn affaire mu diis mu ñëw ne man damaa sonn wala daf ma damaa def dara damaa tooy bërki démb damaa liggéey liggéey bu metti ca fekk amaana loola moom moo ko dal mu jàppitam ne su demee ci docteur bi dañ koy téye loolu tamit bëgg naa ñu gën ci maanaam yee nit ñi ndax nit bu sibburoo rek rek rek fii ñu toll nii ci lenn ci nit ñi bokk boo leen yebalee hôpital duñ dem ca loolu tamit ci façon communication yi ñuy dégg ca du jóge ci ñu jàng wàllu presse ba xam ko xam nga man bu ma jëlee sama whatsapp léegi rek mën na maa wax ak euh, cent cinquante personnes wala mille quelque quelques personnes ca fekk man maîtrise ma li may wax wala su ma ko maîtrisee tamit ni ma ko war a waxee maîtriser wu ma ko ndax loolu lépp dafay am dañuy am loo xam ne ni ñu koy waxee dafa am nuñ ko war a waxee ak itam loo xamante ne bii dafa am ñoo ko war a wax loolu tamit defe naa ñetti laajangoogu yoo xamante ne bii suñ ñu ci dimbilee tamit incha allah lu luñ ci fore tamit daal di koy jàlle ci ñoom incha allah. Abdou Karim bu dee dégg naa Serigne Moustapha Ndiaye Thiargane bu baax mooy. Euh, nan la virus bi di manifesté woo xam nga symptômes yi chaque jour ñu dégg yu bees yi ñu ci mujjee dégg mooy perte goût perte odorat yooyu au début feeñul woon xëy na soj lañ doon wax bopp buy metti ak yooyu donc information yu bees yi ngeen am ci coronavirus nga jox ko ko ak itam euh, nee na ndax benn façon coronavirus moo am euh, bu fekkente ni jumuma loolu mooy laaj yi voilà ak itam information yi naka lañ ko war a transmettre ci euh, kon euh, mbas mi ba tey. waaw merci soxna Fatou xam nga bu ñu gëstoo bu baax rek si gëstu yi euh, nee nañ ne coronavirus nekkul ne tey rek la musa am mais virus bi ñëw nii tey boo ko gisee ñu tuddee ko Covid 19 ça veut dire que dafa ñëw ak beneen doole moom la spécialiste yëpp di wax bi mu meloon bu fi ñëwoon ak bii du benn bon dafa ñëw indi beneen doole indi yeneen signe loolu mooy différence bi. donc mais bu ñu jàppee tey jii nii ah xam nga ba tey chercheurs yi ñu ngi xool boo fi toolee sax ki démb déggoon nga fi ñu doon wax ne affaire bi euh, mun nañ ko jëlee rek ci ngelaw gi nii mais ba léegi leeraluñu ko mais li wóor ba wóor te xam ne ñëpp jàpp nañ ko tey mooy ñëpp nee nañu ki nga xam ne signe ñi nga xam ne moo gën a en tout cas feeñ mooy ki nga xam ne day perte goût di perte odorat maanaam nit boo xeeñcoo dara bu la dara kiyee war nga ko mën a xeeñcu comme li ñuy wax li ñuy wax sunu biir kër yi rek dañ naan ceeb bu naree neex bu baxee xeeñ ça veut ko bon yow bu fekkee dafa bax instant boobu bu xeeñee di nga ne ah ceeb bi neex na ñu naan loolu yëpp da koy perte. dara dootu la xeeñ voilà dara la xeeñ dootoo aussi caf ka très mooy perte gu. merci ça veut dire que jigéen gi bu toggee dafay xool nag ñam na xorom am déet ñu ne loolu tamit du la guub bi dootul ñëwati da nga koy sentir mais ñu teg si ne di nga am yaram bu tàng ah sa bopp aussi itam dam di métti. en un ñu ne aussi dinga nekk koo xam ne di nga sëxat mais aussi nee nañ sa put gi di nga dem ba nga xam ne da ngay sentir ne bu dara di jaar dina métteeg yooyu donc loolu la ñu joxe ay mandarga yoo xam ne de même que aussi léeg-léeg dinañ ne di nga mel ni ku soj mais soj boobu du nekk comme yeneen soj yi di nga gis ne rek say bakkan dina xaw a rogaat tuuti loolu yëpp spécialiste si wax nañu ko mais li wóor ba wóor mooy ñun Sénégal lañ nekk tey comme ni ko doyen Moustapha waxee sànq pali mu ngi fi grippe baa ngi fi te yooyu yëpp tuberculose mu ngi fi te yooyu yëpp dafa jegante ay signes ak li nga xam ne nii mooy Covid 19. ñu si yaram buy metti bokk na ci. waaw coono bu extraordinaire waaw. mais soo ko xoolee tey euh, semaine euh, yële passé dañu demoon supervision si benn district mais bi ñu fa demee supervision ñi nga xam ne nii ñoom ñooy xool li ñuy wax mooy nit bu ñëwee léegi su ñëwee. maanaam si biir dugg si biir euh, hôpital bi wala centre de santé bi ñëw wax ne man de dama perte goût wala man sama yaram day métti dama grippe nangam nangam nit ñi non seulement dinañ ko xoolal defal test xool ndax am na ko wala amu ko ndax am na Covid wala amu ko mais dinañ ko defal test comme daf na day sëqat aussi ndax am na tuberculose war amul tuberculose foofu la nit ñi war a yóbbu tey affaire bi ne bu ñu jàpp rek yenn saa yi nga gis kenn ñu defal ko test amul Covid ñu defal ko test tuberculose mu am tuberculose. wala wala palu. wala palu. bon kooku bu fekkee ne demul bu fekkee ne demul hôpital bu ñu xam lu ko jot gars ñi bu ñu ragal hôpitaux yi sénégalais dafa am moment boo xam ne bu toogee tey bopp bi di métti rek mu génn rapidement dem si poste de santé bi toog dugg si docteur bi man de san bopp bi day métti mais ñu am benn moment tey jii ñu ne Covid ñëpp di daw déedéet je yaakaar naa ne am na fi yeneen feebar yu fi nekk yoo xam ne ñu muy tuberculose muy sida ak ñooñu yëpp tey nit ñaa ngi ko jàngal terewul ñu ngi dem hôpital. bon nit ñi nañuy dem si hôpitaux yi parce que mun na bañ a nekk Covid mun na nekk tuberculose mbaa mu nekk grippe ku demul kenn mënu laa faj ku ñu xamul sa feebar mënuñu laa faj. foofu tamit euh, xëy na dañuy rejoindre un peu euh, ñu mel ni ñoom professeur Seydi ndax euh, loolu li koy expliqué mooy stigmatisation bi. Mhm. maanaam da koy am ñu joxoñ la. jàpp ko def ko feebaru kersa. ba mu mel ni daal ku mu dal yow nit ku salte nga wala nit ku bon nga wala yu mel noonu donc finalement dañ ko def une maladie de la honte loolu aussi dafay participer euh, ci un peu nit ñi di toog seen i kër ne bu ma demee dañ naan kër coronavirus baa ngi ne wala kee dafa corona di nga gis sax ku ci dem ba wér nit ñi continuer di ko daw donc yooyu aussi ay facteur la yoo xam ne xëy na faaw ngeen ñaax ci dinañ ci ñëw ci sëriñ bi aussi mu mu ñëw. Euh, ci aspe boobu mu leeral aspect boobu. parce que tey yaakaar naa ne euh, feebar jombul kenn feebar jombul kenn muy coronavirus muy sida muy tuberculose tey jii ni ku am da ngay dem di faju di faju ji wér. coronavirus am na ñu ko amoon dem faju nañ ba wér. man yaakaar naa ne jombul kenn joxoñaante bi mun na ñàkk man dama yaakaar ni nit ki ñun Sénégal solidarité beeg teraanga bi ñuy woote. ku ñu jàppalewul dimbalewuñu la waruñu laa joxoñ man dama yaakaar ne boo dëkkee ak nit sax nit kooku ñu ne ah kii kat yaayam wala kii kat papaam wala kii kat rakkam dafa dafa dafa génn àdduna si si si feebar bi kooku danga ko war a dëfal wala kii kat daf ko am yaakaar naa kooku da nga ko war a accompagner ba mu wér te yooyu c'est valable pour maladie yépp muy Covid muy tuberculose muy sida muy ñi am cancer ñëpp dañu leen war a jàppale di leen accompagner pour ñu wér li am solo nag mooy comme ni nga ko waxee information beeg communication bi je crois que foofu la ñu suñu ministre tey Abdoulaye Diouf Sarr di xaaree mooy que leader communautaire yi comme ni ñu koy waxee ñu gën leen tàggat gën leen tàggat parce que tey jii comme ni ngay wax faire bés bu nekk ñu dégg lu bees bon nañ leen di tàggat au fur et mesure di leen tàggat tàggat boo xam ne tey dinañ mun a joxe la bonne information dem di ko partager ak li euh, chef religieux yi ak euh, chef yi nekk ci village traditionnel yi ak y aussi tamit les chef de quartier de manière à ce que ñëpp kenn ku si nekk xam fu ngay teg sa tànk parce que feebar bi dañ toll foo xam ne tey ji nii communication bi dafa nekk une communication interactive et dynamique ça veut dire bu nga xam ne ni day jàll fu nekk lay jaale pour ku nekk mun si jot te loolu tey ji nii ñun dañuy yaakaar ne suñu chef religieux yi war nañ ci jouer un rôle important mais dañu war am la bonne information am na solo Abdou Karim yaakaar naa ne sëñ Moustapha tontu na ci laaj yi fekkee am na lu des xëy nañ waaw moom kay dafa mel ni ni nga xamante ne bii ni lañu ko sàkkoo woon euh, leeral na ko bu baax a baax ba nga xamante ne bii euh, jugaat dem di ko leeralaat beneen nit nekkut loo xamante ne bii dafay dafay jafeeti nga xamante ne bii kon moom leeral na ne képp koo xamante ne bii dal na la. da ngaa war a dem ñu seeti la ba xañ na euh, lii ñu tuddee quarantaine dégg leen nga dégg ñu ne ci sàngam dañ fa quarantaine benn kër mooy que ne loolu façon barrière la ci ni ma déggee kon wax bi dafa mel ni dafa am kenn koo xam ne dafa génnoon dugg siwaat am virus bi ñuy seet ndax moom jox na ko ñeneen ci biir kër gi wala jox na ko ñeneen ci quartier bi xañ na kon moo tax ñu quarantaine ñooñu waaye jubluñu ci kon bunduxataal leen walla soril leen seeni kër wala pine leen wala def leen dara loolu tamit gis naa ne ay yu baree bare da ciy juddoo ba lenn ci nit ñi dañuy dem fekk ku ñu quarantaine mu jël ci moom information boo xam ne day mel ni sax kooku bi muy wax dafa mer te loolu tamit waral nañ koy invité bu baax a baax ci li nga xamante ne bii moom mooy mbas mi ndax mbas mi tam lépp loo ci wax luy tax nit ki yolomal gardam yow yaay ki nga xamante ne bii yaa ko yokk yaay ki nga xamante ne bii itam yow yaa ko dundal des fois nga gis koo xamante ne bii nañ ko quarantaine mu ne man dañ maa téye ca man awma coronavirus ca fi mu toll nii li tax ñu téye ko tudd ci dara day wax ne rek dañ maa fekk sama kër jël ma ndax lan daa am ku fa euh, amee Covid 19 yóbbu nañ ma téye nañ ma ay quelques jours mais parce dalu la. ca dañuy bañ kenn ki nga xam ne moom la dalan foofu ca nga amante ak moom contact la ñuy bañ mu jox la ko léegi loolu tamit ci côté nit yi ni ñuy euh, informer nit yi yooyu tamit gisan naa ne ay faay am na ci ba tax na garde yi yu mel noonu tam doon na ko euh, te itam nit yi su wax itam day mel ni kiy wax ki nga xamante ne bii moom lañu sant pour mu wax day mel ni moom mooy wax buy wax ak nit ñi day mel ni koo xamante ne bii dafa bokk ci waa santé buy wax itam day mel ni koo xamante ne bii dafa bokk ci ñi nga xamante ne bii ñoom lañ dénk tawat nga xamante ne bii day wax rek sànni loxoom nit yi dañuy def lii dañuy wax ni feebar bi nii la demee daal di génn benn vidéo boo xam ne nii ci beneen réew la amee ñëw teg ko loolu nag tax nit yi da gis koo xam ne sama classe gi day takk masque ba dem ci fenn daal di tekki su demee fenn sax ñenn ñi policiers yee taxoon ñuy takk rek ak yi ñoom ñooy tax ak gendarme yi ñoom ñooy tax nga gis ne diir bu gàtt la ko nit ki di takk eh, daal di koy tekki du xool ne man kat dama nekk ci benn barab boo xam ne dafa bari ay salaire yu jóge ci doomu aadama même bu doonu kon Covid 19 normalement boo xoolee benn minibus matul sax 5 mètres carrés ñu def ci 16 personnes nit ñooñu nag di noyyi même bu fekkente ne bi tawat amul woon foofu sax dafa mel ni ñëpp dañu waroon a takk masque ndax itam nag. Euh, jóge fa soj mën na ci am jóge fa tamit leneen dal la mën na ci am waaye daal fokk daal ñu fexe invité nit yi ci li nga xamante ne bii ni lañuy tontoo ci tawarsik benn mooy koo xam ne dafa bëgg événement am wala koo xam ne dafa doon organiser dara loolu di jub mu bëgg lay pour jaarale ko ci googu wet wala koo xamante ne bii dafa amoon benn spectacle bu muy def mu ñëw bay jege mu bëgg loola am moo xam day jaay ay matelas wala dafay jaay ay paan wala dafay jaay kii parce que léeg-léeg nit wax da ngay daf lay wóor ne bis bii muy séentu moom jëmut bokkut ci communauté bi nga xamante ne bii ñoo koy organiser ca itam nangoowul ca kilifa ga nga xam ne moo jiite xew-xew booba waaye moom kat camion bi mu war a jël wala usine ba mu war a dem dem jaaye ji ci dëkk booba boo xoolee wax bi ji ci biir di nga ci gis sew-sew boo xam ne moom foofee lay waxee intérim lay sàmm daal seen intérim lay sàmm pour bëgguñu def xew-xew booba tax ñuy wax di xataraayu ak ak def ay yëf ca boroom yëf ya ak ñam ko bokkal man ngaa toog ba déwén doo dégg ñu wax loolu tamit lu mat di bàyyi xel la léeg-léeg nga gis koo xam ni sax day wax tontuwaa Tiwaawan wala mu tontuwaa Tuubaa ca waa Tuubaa wax luwuñu waxuñu wax luwuñu benn nit rek boo xamante ne bii dafa <laughs> war a dem jaayi ay bagaasam wala mu dem defi dara loo xam ne daf koy jural xaalis boo xam ne du ko amaat ba déwén kon ci événement bi la ko séentoo mu daal di former ay xaleem am groupe am ñuy wax rek di xataraayu di def ay yëf loolu tamit lu mat a gën a yaatal la ci wàllu ni ñuy tasaare xibaar yi ak itam ni nga xam ne ni la ñuy tontoo yéene ndax bu groupe rek da nga ciy dugg soo waxee dara kenn faalewu rek da ngay gis ne loola moom dafay am nañu du duutuñu fullaal ci tawat si bi nga xamante ne bii gis nañ dee gi ni mu demee même bu ñu la waxut ne la kooku ci la dee nit yi commencé nañu di moytu nit yi ñu ngi tàmbali di moytu kon loolu dañ ko war a yokk dañ ko war a yokk ku ñu xam ne tam am na ci cas léegi dañoo war a siiwal ne diw moomu dafa am cas faatu na ñu ne dafa faatu ci la faatoo ñu ne def ci la faatoo. bañ koo làq. waaw kay bañ koo nëbb. am koo xamante ne bii kilifa lay doon moom man gis naa fee kilifa yi ñoo waxal seen bopp ci seen kàddu ne ñun dañoo am coronavirus. yàlla mi dara tëwut ñooña faj nañ leen ba ñu wér kon kay am coronavirus taxul nga wàlle ko am coronavirus itam taxul nga faatu dégg naa sax ci docteur yi ñu ne leeg léeg mu dal nit sax ba mu am sens su mën a wér ca du dem hôpital kon kay ku mu dal itam boo demee hôpital yàlla mën naa dogal nga gaaw wér ca doo ko jox keneen mhm. waaye su fekkee faatulu la nag nga jox ko ñeneen ñooñu mu faat ca ñaar baa ñett dafa mel ni seen bakkan boobu ci sa loxo la ko sunu borom jaarale ci dogalam loolu tamit lu mat a bàyyi xel la. soxna man dafa am ñaari misaal. mi ko wax sànq mooy si nit ñi dañuy takk masque parce que bu ñu gisee policier bi dañuy bañ a fay. Euh, contravention 6000 francs mm-hmm. euh, man liir naa si internet yi comme ñeneen yëpp mm-hmm. ne presque si xaw ma 72 heures gendarmerie am na 10 millions. 400 et quelques. police am na 12 millions et quelques. man je crois que yooyu c' est mm-hmm. yaakaar naa tey Sénégal kenn ku nekk war nga mën a nekk responsable jël responsabilité boo xam ne tey masque da nga koy tàgg pour aar sa bopp aar sa njaboot aar sa waa kër mais pas pour benn policier wala nangam. Hmm. tey suñ demee bañ taxaw ñu ne douze millions dix millions loolu ça fait peur. ñaata personnes ñaata personnes ñooy dox bon duñ sol masque. mais yaakaar naa ne de delà nañu nañu xool au delà même si xaalis boobu hmm. xaalis boobu ñun man damay jàpp ne amul importance. li am importance ba nit ñi di taxaw si mbedd bi gendarme yi ñu génne leen si mbedd bi génne policier yi ci mbedd bi mais loolu daf lay aar yow bon yaakaar naa ne tey man bu ma mënoon dégg ñu ne gendarme yi taxaw nañ ci mbedd bi amuñu amuñu 10 francs man je crois que loolu ci lañ doon kontaan ñoom loolu mooy ndam mais am nañu 12 million wala 10 millions mais loolu du ndam bon dafay mel ni que ne tey jii encore war nañu sensibilisation war nañu ko gën a yokkaat loolu mooy misaal bàyyeeku bi loolu mooy bi loolooy bi je crois que tey jii nii foofu la ñu war a teg suñu baaraam bu dee duut baaraam dëgg la foofu la nekk tey ñun ñëpp fa la ñu war a jublu pour gën a xeex li nga xam ne mooy mbas mi. mooy def de telle sorte que fii ak semaine yi di ñëw gendarmerie bu wala police bu mu fi taxaw naan am naa 20 millions wala am naa 12 million mais am na zéro franc. je que loolu mooy objectif bi. ñun ñëpp ku nekk di sol masque di aar sa bopp arsa sa njaboot maam arsay say papa doom. am na solo euh, xanaa ma euh, souligner benn point boo xam ne feeñ na ci waxu Serigne Moustapha Ndiaye mi ñu dalal tey mooy ña ñu daan quarantaine ñuy ñaxtu ne yëguñu dara ci seen yaram jàpp ne feebaruñu euh, ma yokk ne feebar bi mën naa ne ci yow te doo ko yëg. mën nga am bañ am benn signe donc sànq bi ñuy wax ci symptômes yi waroon nañu ci dugal loolu. ni nga mën a yëgee bopp buy metti yëgee ko leneen ak leneen noonu nga bañ a mën a yëgee dara. moo tax man foofu damay def sax damay inverser même responsabilité yi. fi mu ne ku ci nekk ci ñun donte yëgoo dara. war nga considérer sa bopp ne yow mën nga koo am. parce que demoo hôpital bañ testé la. donc yow sa responsabilité mooy fexe mbas mi bañ a law. kon man tey bu ma duggee fii. waruma ne ah xaaral ma takk ndax ñi ma fiy nekk xaw euh, ñi ma fiy fekk xaw ma ndax am nañu mais jàppal na yow mën naa am am nga nga ne ah ñii kër waruma leen a wàll ndax boobaa àq mooy dugg. te foog naa àq itam islaam am na lu mu ci wax. donc sa kër itam boo fa demee noonu la bala ngay dugg jëlal matukaay yi nga war a jël raxasul su mil say yére defal li nga war a def yëpp te jàpp ne xëy na yow jóge nga ci biti ëndaale ko waaye am na nooy ndax gis nañ fi ñu ko am dem ci seen i njaboot te wàlluñu leen ba ñu defee test seen entourage amuñu parce que ñooñu bàyyi nañu xel ñi ñu nekkal donc loolu Abdou Karim ma sos ko rek ci ci li nga wax alors ñu ñëw ci soxna Daba xam naa ne fi mu ne yàkkamti na lool wax ak jigéen ñi ndax ni ma ko waxee sànq responsabilité bu rëy lañu ci am ñun jigéen ñi ndax xëy na bu njaboot gi ñëwee sumu yére yi ñoo ko war a toppatoo mhm. masque yi aussi bu ñu ñëwee ay masque lavable la ñuy takk donc war nañu ko fóot ndax masque yi Abdou Karim euh, dina ma euh, confirmer du ñàkk am na noo koy utiliser masque bi ci boppam mën na nekk source de contamination ndax booy jàpp sa loxo di ko teg nii ak foo tool di ñoddee ko def yëf mën naa tag ci kaw euh, masque bi nga laal ko mu ne ci sa loxo nga dem laal bunt sa doom ñëw laal ko wala sa collègue ñëw laal bunt bi dem laalaat feneen masque affaire bi moo sew sew goo xam ne moo tax yooyu aussi yu yu jara bàyyi man personnellement moom masque yi dama leen bu ñu leen tekkee nii fekk defuma ci ndox mu bax def ko na ma ko war a def duma ma ñeme masque yi donc foog naa ne loolu responsabilité wu jigéen ñi la soxna Daba di point focal comité penc euh, bu euh, cëddeem euh, tey looy dénk jigéen ñi ak yow personnellement luy sa taxawaay ci xeex mbas mi plan ak EMAD Sumba. waaw man comme niñ ko waxee rek ñun affaire bi bi mu commencé fekk na sax balaa EMAD di jël initiative di jàppale nit ñi fekk ñun commencé woon nañ ko. parce que ñun dañuy suivre média di déglu professeur Seydi di déglu professeur euh, Bousso ba ba am nañ si yenn aperçu yoo xam ne redoubler suñu mesure d'hygiène loolu képp képp ku ñu toogal boo setul ñu wax ak yow comme ni ko sëriñ bi waxee rek set moom bokk na si lislaam parce que tamit hygiène dafa war a am nit dafa war a am hygiène intime ba pare balaa nga naa nga naan naam ne fa parce que yow munoo set ñàkk set ba pare balaa ngay digle càngaay da sangu ñu koy commencé si ñun xale yi suñu waa kër yi comme ñun nga xam ne macha allah fi ñu dëkk parce que ñun ñu ngi dëkk penc penc la c'est un nom la affaire lébu la mais ñun fi ñu nekk suñu ñun fi ñu nekk dafa xaw a doy waar ndax point focal la ñun ñu ngi suñu penc yàlla dafa def mu nekk biir Sandaga donc suñu kër yi waa marché bi dañuy ñëw di fa jàpp ak def donc ñun yàgg nañu cohabitation boobu dafa bari si ñun te depuis au temps la donc li ñu mun rek mooy ñun ñu redoubler d'effort hygiène bi ñu insister ci parce que sax am na loo xam ne bu la dalee yaa ma gën a xam moom feebaram affaire am dafa gaaw parce que ni ñuy naan cas asymptomatique yooyu rek mm-hmm. voilà léegi nag loolu tax na dañ doon redoubler d'effort di gën a insister ci hygiène bi aussi di surveiller xale yi aussi di éviter lekku mbedd yi éviter surtout góobale yi ñuy naan nga jox kii naan jox kii naan parce que am na yoo xam ne daf fi war a jóg parce que am na yoo xam ne daf fi war a jóg parce que balaa nga naan naan ne fa loo xam ne bu la dalee na dal sa doom dal sa jabar dal sa ñi fay fréquenté ñëpp donc autant mieux vaut prévenir que guérir ñun daal yal yàlla defal jàmm daal ñun daal ñu ngi ci. daal ñu ngi ci jigéen ñi particulièrement jigéen ñi particulièrement mooy li ma la waxoon ne ñu gën a redoubler hygiène bi. Mm. parce que di surveiller xale yi di surveiller li ñuy lekk di surveiller li ñuy sol. parce que normalement nee nañ boo génnee ñëw sax sa dàll ak yooyu da ko war a teg si biti ak looy laal surtout ngay jëfandikoo eau de javel beeg yooyu donc lu ñu daan jënd ñaar ñu jënd fukk ñu daa jënd benn ñu redoubler ko rek gën a si mesure accentué wu daal si mesure d'hygiène bi daal surtout yàlla nag ka teg si loxo yàlla nag parce que loo xam ne xamoo kañ la jëm te kenn amul feebaram loo xam ne kenn garabam kenn mënu ko gis à l'œil nu donc mieux vaut la jël say matuwaay toog xaar daal waaw. am na solo euh, Karim damay ñëwaat ci yow ndax euh, moom itam wax na point bu am solo junj nga ko sax ci ndorteel gi mooy xale yi. ndax tey xëy na euh, mag mi genre adulte boo ko sensibiliser mun na jël ay matukaayam bàyyi xel mag mi waaye man ñi ma gën a jaaxal ci yëf yi mooy xale yu ndaw yi les 4 ans 5 ans 6 ans nga xam ne dañuy ñëw rek laxasu euh, ñu mel ni sëñ Moustapha Ndiaye Thiargane di seeni maam jaxasoog ñoom te moo ne xale ba xëy na ma nga jóge football yi euh, kam fa dajeel xëy na seen kër kaa am na fa xale yi en général du ñu wane benn signe si si li feeñagum donc mun na dem football yi wala fooy jeeg moromam yi ramasser ko fa ñëw indi ko ci kër gi su boobaa ñu naan cas communautaire fekk communautaire baa ngi ci kër gi jógewul fenn ci xale yooyu la donc loolu aussi dafay dugg ci euh, sensibilisation bi mais day indiwaat responsabilité parentale bi ndax xale bi ñu fi amee vacance gis nañu ñu bari dañoo bàyyi seen doom yi ñu ne ci mbedd yi ñu bari nag mënuñu ci dara euh, wax nañu wax nañu mais euh, lu ñu gis la te loolu itam yaakaar naa ne bunt la bu Covid 19 mën a jaar. merci soxna Fatou tey soo xoolee nga def calcul bi entre mois de mars. ba mois de novembre bi ñuy tijji dafay mel ni am na xale yoo xam ne am nañu juróom-ñaari weeru vacances mosul am Sénégal juróom-ñaari weeru vacances am si ñoo xam ne ñu ngi def examen tey nekk troisième ak nekk CM2 man ñooñu sax buñ ko xoolee tey euh, dañu war a gën a accentuer jàppale ñooñu maanaam tey jii ni gis naa ne am na école yoo xam ne nii dañu génn doo gis benn xale bu takk masque te xale yaa ngi nekk CM2. man yaakaar naa ne gox-goxaan yi maire yi ak ñëpp ku si nekk mu ngi def ay effort mais ñu yokkaat effort yi pour jàppale xale yooyu tey gis naa professeur da Ndiaye di def action de proximité yu am importance di jàppale xale yi au niveau de Kër Massar donc si école yi di leen jox ay max di leen jox ay lavoir ak yeneen ak yeneen plan ak EMAT aussi noonu la ñu def kër gu nekk ménage 60 kër gu nekk dañ fa dugal lavoir dugal fa savon dugal fa eau dugal fa ay masque mais si masque yi dañu privilégié masque yu si gën a ëpp xale yi lañ ko jox parce que suñu seetloo bu baax kër yi si biir kër yi yaay yi des fois dañu dàq xale yi si biti parce que dañ naan dañ ñu sonal déedéet c'est le moment de canaliser les enfants ñu réduire maanaam doxu xale yi mu am fu muy yem si biir kër gi parce que comme ni nga ko waxee xale bi xëj na yàlla may na ko feebar bi même bu ko amee tamit mun na ko bañ a sonal mais bu ko jëlee si biti indil ko maam bi si biir ah ko kenn ñaanu ko yàlla maam boobu bu nekkee comorbidité maanaam su amee beneen feebar boo xam ne muy jabet wala leneen ak leneen loo xam ne daf ko sonal bu si Covid bu duggee rek dina. ko la mu nekk mag sax ndax boo nekkee mag sa organisme dooleem day wàññeeku. nekk sax mag moo tax ñuy wax ne dañ pro ñu dal di protéger maam yi pour ñu protéger maam yi il faut protéger les enfants et jeunes jeunes yi nag. am na ñu si dem école nañ leen jox ay masque nañ leen exiger ñuy sol masque yi mais damay ne xale yi des fois masque du pour takk si loxo masque du pour takk si bopp parce que soo takkee masque bi si bopp comme ni nga koy waxee noonu mais sa bopp bu fekkee ne virus ba tag na fa virus bi si masque bi la jëm ah te ñuy jàppale xale yi aussi si masque yi masque yi am na masque yoo xam ne masque yi bokkul masque tuuti ak masque yi nga xam ne nii da nga ko war a sol léegi boo demee boo ñëwee sànni bonne communication bi comme ni ma koy waxee rek nañ ko def communication transversale mu nekk loo xam ne day yegg ba si biir kër yi yegg ba si biir école yi te école yi il faut ñu commencé ko di wax de parce que affaire bii tey jii nii bu ñu toogoon ba ñu Sénégal am nañ ñett cas kese lañ am école buy ubbi ban disposition la ñu nekk il faut que loolu ñu commencé si xalaat dès maintenant muy ubbi ñëpp a war a dem xam nga examen yi sax tuuti ñoo dem ñi def examen ñu néew la ñu waaye buy ubbi ñaata élèves ñoo war a dem c'est des millions donc élèves yi aussi bu fekkee ñu ngi ñuy dégg école ba bu ñu fay dem ñeneen ñi dañuy takk masque man ngeen saa yi damay gis groupe élèves bu ñuy ñëw nga gis leen ñu gàddu masque yi laxas ci seeni loxo lëngante di dem donc foofu da lay wóor ne bu ci yàlla deful sutura transmission bu garaaw moo fi am. donc ñoom itam foog nga bàyyi xel xam ne ay ay ay vecteur la ñëw dañuy dellu ca kër ya. te ñoom ci seen biir mën nañ koo wàllante te benn cas amee ci école yaakaar naa ne ña cay mucc du ñu bari donte def nañu ay mesures barrières et tout mais ku xam virus beeg ni muy ni muy doxee. vraiment prox ndoll bu nekk daal yaakaar naa ne war nañu ko jéem a tëj. dëgg la dëgg la mais comme ni ma koy waxee rek li ñuy wax nii rek mooy rek anticiper rek. di wax ni ñu ne euh, euh, demain se prépare aujourd'hui bon nañ commencé gëstu xam nañ ne Sénégal ay ay borom xam-xam yu xarañ ñoo fi nekk tey jii nii su ñu xoolee situation bi ak gars yi ni ñu def ba xëñ na tey amuñu nombre boo xam ne aussi élevé ah que dëkk yi c'est parce que dañu am ñu xarañ dañ xam ñoom professeur Seydi ñoom professeur Bousso infirmier chef de poste yi médecins yi ñu am professeurs yi ñëpp ay jàmbaar lañ ñu ngi contenir affaire bi mais il faut ñu jàppale leen te pour ñu jàppale leen population bi moo si war a teg loxo moo tax ma ne rek nañu anticiper nañu commencé xalaat suba comme ni nga ko waxee. Mm. tey jii nii xëj na ay 6000 élèves. waaw mille élèves mais demain c' peut être 300000 et cetera élèves donc comment faire avec il va falloir que ñu commencé ubbi réflexion bi parce que bu ñu demoon bañ ñett ñett fe ñett malade rek lañ am ñett malaat te ba léegi kenn gisul ñu ne trouvé nañu li koy faj. mun nga mun nga ñëw léegi ñu piqûre la mu dem wala ñu jox la médicament mu dem bon affaire bi mu ngi fi ba léegi bon yan disposition la ñuy teg sur la table je crois que tey jii nii reflé ni ñuy réfléchir tey Sénégal sur après Covid pour sur le plan économique noonu la ñu war a réfléchir pour demain aussi par rapport surtout ak Covid boobu ak xale yi si biir école yi tel tey am na ay dispositions yu ñuy jël mais nombre bi c'est limité comment faire mais je crois que foofu tey la xaar ñëpp fa la ñu leen xaar ñun communautaire ñu ngi ñu xaar. ñu gën a yokk suñu sensibilisation ci biir terrain bi maa ngi lancé appel à tous les communautaires du Sénégal comme ni mu ko defee woon képp koo xam ne yaa ngi si projet trois aar aaru wala ngay liggéey ak plan international wala ngay liggéey ak EMAD ak vol volonté yëpp di biir quartier yi affaire bi ku nekk na ko def sa affaire parce que nag suñ ko ko deful tey ëllëg dinañu jural loo xam ne xëy na ku nekk dina toog di naan su ma yëgoon su ma yëgoon fekk su ma yëgoon wees na bu yàgg comme ni ko professeur Seydi waxee keroog il faut que chacun met la main dans la patte pour qu'on puisse vraiment bouter le Covid-19 hors de noo pays. am na solo loolu dafay indi euh, vivre avec le virus bi président waxoon li tax ñu war a jàng dund moom mooy jóge gu fi gan boo xam ne nag xamoo kañ lay ñibbi dàq nga ko ba sonn demut dangay ngay jéem a xool nooy dundeek moom di ko moytu. bu ko defee xëy na euh, mën ngaa mucc euh, donte mi ngi fi ba tey. kon sëriñ bi foofu itam la ñuy ñëwaatee ci yow. ndax ni ñu ko waxee léegi. xëy na ci xale yi ñu ngi ci euh, vacance ñenn ñi waaye buy ubbiwaat ñëppay dem xëy na itam pàq bi am na ñoo xam ne wàññi woon nañu seen bés yi ñuy liggéey wàññi woon nañu seen i activité waaye loola dalay leer ne mënta wéy ndax gan gi moom demagut boo déggee borom xam-xam yi li ñu wax waajagut sax jug fi mi ngi nii tey gën a amaat doole gën a euh, defaat xëy na musiba ci àdduna bi yépp kon kooku faaw ñu dëkkee di ko moytu waaye itam du ñu teree xëy na reprendre yi ndax ka yore otoom ñu tëjoon euh, trafic bi euh, liggéeyam taxawoon na xëy na lu mu yoree woon njabootam tëna ko looloo indi woon fitna gi ki yoroon palaasam di jaay itam xëy na doon ubbi ñetti fan euh, ci semaine bi wala ñeent mënta wéy ndax faaw mu dund te jamono ni mu méttee aussi koom-koom bi faaw mu wéy di dox kon jàng dund ak virus bi ca la ñuy ñëw nga ñaax waaye xëy na insister aussi ci aspect àq bi man boobu côté daf ma neex ndax boo ko ragalee wee noonu jàpp ne xëy na yow boo sàgganee dellu ca kër ga ameel nga àq sa njaboot boo sàgganee ba wàll ko sa collègue indi nga àq donc en tant que kilifa diine xëy na nga ñaax euh, taalibe yi ak mbokk jullit yi euh, ci ci aspect boobu xam nga l'islam moom euh, li mu jàngale ci tawarsi yi ba tax mu bàyyi principe yu bari yoo xamante ne bi moom la doon dundee Euh, dafa jëfandikoo li nga xamante ne bi moom la wax wax raatul xuququl insaniya maanaam sàmm aqi doom aadama moo xam góor la walla jigéen walla mag la wala ndaw dañu dafa doon farata ci jullit bi mu sàq mu mu sàmm aqi jullit bi ak kum ci mën di doon moo xam ki mu tollool la wala ki ko féete kaw wala ki nga xamante ne bii moo moo ko mag ba pare yërëm mu mu santaanewaat insisté ci na yërëm ñi nga xamante ne bii yéen yéen leen féete kaw ëpp leen doole ñoom itam nañu jox cër ñi nga xamante ne bii ñoo ñoo leen mag kon kay loolu mooy wane ne lislaam dafa bëgg te tracé woon na démb ak bërki démb ne bu mbas amee fam amee nañ nañ toog foofa bu ñu ñibbisi donte kon fii mu amul lañ dëkk bu ñu daw tawat si tax mu ñëw ndax dañoo bëgg a sowe kon ñii te bu ñuy sowe ñii dañuy bañ kenn ku jëlee tawat sa ca ñooñu indi ko fii. loolu mooy loolu moom mooy quarantaine. nga gis ne. Euh, l'islam dafa lim bëgg yëpp dafa dafa dafa bari da ngay gis koo xamante ne bii sangu na jàpp ñëw ci jumaay ji ci lu ma tudd vingt cinq minutes ñu tegalaat ko beneen sel ak meneenam ndox bala muy xool sel bi dëppoon na sax ak euh, ndax alcool bi ci nekk jëppoon na ak euh, mën a dundal raw xaanu mën a yàq sama njàpp waaye li mu gis rek mooy sariya moo ko digaloon loolu mu def ko ngir mën a sàmm àqi doomu aadama yi su ko defee loolu lislaam loolu ak ak ak ak wàllam la lislaam ci dafa am àtte boo xamante ne bi daf laa bëgguloo yow sa bakkan sàmm loolu ko waaye daf laa bëgguloo bakkanu beneen doomu aadama sàmm loolu ko ba pare nag am lu mu la teg ci kaw nga bañ a faat benn bakkan ndax nee la yow soo faatee benn bakkan mel nga ni ku faat génération bu entier kon loolu àq la l'islam dafa bañ koo xamante ne bii danga bakkan dafa rote ci yow nu mën da demee nag moo xam da nga koo moo xam da nga koo fexeyal ci beneen fexe ndëgg sërëx mu demal boppam ba faatu nga ba wàll ko coronavirus baa ci loolu laa jëm si wala ngay toog amee tawat wala fu am tawat nga bay bayal ko walla nga wax ko lu tax mu dem fa donte kon intérêt la fay jëli ba yàlla dogal bakkanam des ca loola même bu ci wiir gi yaram amee ba mu faat ñaari waxtu yu tegaloo yu julliwut àq jooju yow yaa ko ameel jullit boobu ci àq kon gis nga ni nga xamante ne bii ni la sewee nit yi nag dañoo gis ne état Sénégal ak état yi nga xamante ne bii ak gouvernement bi ñoom dañoo gis ne atte bii ñu tëral nasuñu ko ci atteb diine teguñu ko ci atteb lislaam waaye dafa mel ni buñ ko ci tegut itam ca lislaam bëggoon rek ku aar bakkanam doomu aadama nit itam waroon nañoo jàng seen kéemtalaay kàttan pour fekki état bi ak gouvernement senegal ci ni mu bëggee sàmm bakkanu doomu aadama boo dellusiwaatee ci xale yi xale mën naa génn këram rek teg loxoom ci miir bi di dox ba àgg ca àngal bële dem fekk potolampe bi mu def ko nii ñaari yoof yëf yooyu léegi soo génneen nii léegi nga gis xale def ko ca comme virus boo xam ne toogut benn barab kon dafa mel ni xale gaaw na trop ci mu jël virus diggante Medina ak Plateau indi ko fi. li fekk dégguñu ne jóge na fi. ba am at bu kenn yolomal dara. ci li nga xamante ne bii moom lañ doon def. ko defee loolu bokk na ci li nga xamante ne bii moom moom moo ñuy dimbali. ca wax dëgg yàlla kilifa diine itam yokku ñaan yi. bañ cee tayeel. xam ne itam sunu borom moo indi lii ñoom itam ñu gën sensibiliser njaboot gi gën leen a saxloo ci diine ndax diine itam dafa bëgg nit koo xam ne ku set la waaye nit koo xam ne ku sell la sell ci ay jëf ak sell tamit ci ay doxalin su ko defee ñu sàmmaat diine ji ca fonk ko ca xam ne tamit ne yii nga xamante ne bii moom la ñu occidentaux yi indil tamit muy nekk yoo xamante ne bii ci am polo yi jóge ñu jàpp itam ne loolu lañu sunu borom corriger ba teg ñu tiis wi daal di ñuy teg itam naqar wi ndax euh, koo ubbi tey téléphone daa ca fekk loo xamante ni bii doo ko ñemee wax dund nga ba am 40 mosoo gis sax lu mel noonu loolu nag nekk loo xamante ni bii yàggu fi lu bees la euh, tasaaroo na ci tasaaroo gu gaaw ca yàlla tam dafay pinewaate jàng nañu waa kër Lóot ni kuréel gu néew ñoo doon def loo xamante ne bii baaxul jëm ci wàllu sexuel sunu boroom mere génération ba yépp faagaagal leen une bonne fois kon jullit yi foofu la ñu war a dellusiwaat xam ne waa kër Lóot ay nit la ñu woon waaye tamit ñun ñii di ummatu seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ay nit lañu nuy moytu ndiku di tooñ sunu borom ci tooñ gu ñu tey koo xam ni du ñu wëlbatikuwaat di ko baalu kon loolu daal mooy li nga xamante ne bii. Euh, jëlee nañ ko fi ci euh, sëñ Abdou Karim loo xam ne ci gàttal des na ko mën a jottali nit ñi ah, ñun itam li ñu fi jàngate danañu ko mën a jottali nit ñi waaye tamit lislaam doonte kon itam amuñu ca xam gu wóor itam waaye loolu tamit ñu mosal leen ko ci li nga xamante ne bii moom mooy bëgg-bëggu lislaam ak euh, li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa santaane. am na solo am na solo lool sëñ Moustapha Ndiaye Thiargane moom la ñu doon euh, dalal tey ci ànd aar aaru euh, muy kilifa diine nekk itam fii ci pàkku Lambaye bu centre ville kon doon itam point focal boo xam ne bu solo la ci xeex bi ndax mi ngi jottali message bi di ko wesaare loolu itam lu mën a participer ci combat bi nga xam ne moom la ñu sumba plan international ak EMAD ngir xeex mbas mi ñamoon mbégte loolu itam Karim Fall di chargé de projet bu EMAD ak euh, Soxna Daba Ndiaye di point focal euh, comité penc euh, ca mu ñëwoon ci wàllu jigéen ñi ak surtout xale yi ak responsabilité bi nga xam ne aussi soxna yi am nañ ko ci xeex bi muy war a yokk set gi ak itam toppatoo ndaw yi kon mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci quatrième numéro bu ànd aar aaru Fatou Thiam Ngom amoon mbégte ànd ceeg yéen ñu dig leen daje beneen dimanche incha allah toujours mbas mi ak du ñàkk yeneen ak ñaanal itam euh, président Abdou Khadre Gaye xam naa coono gee ko jàpp ndax dafa yenn xeex bi macha allah di nuyu itam Baba Sy bu plan international waroon ànd ak ñun tey mais euh, tënku ba tey na ci liggéey bi xam naa du ñàkk beneen jotaay incha allah mu teewee ko kon mbokk yi jërë ngeen jëf ñu yendoog jàmm ba dimanche incha allah.